alliance pour la défense du sport et des ñu ngi ko def parce que dañoo xool ni ñëpp a nga assemblée nekk ñu ko sport am na doole boo xam ne bi war na fa am ñu fa toog ñu leen fa toogal ñu gis ni am na ñu jógoon daal ni euh, béykat yi nappkat yi ak sàmmkat yi bari nañu te ñooñu wootee lañu dem assemblée ñuy jóguñu transporteurs yi commerçant yi chauffeurs yi apprentis yi bari nañu dem nañu assemblée ñee jóg jóge seen seen seen confrérie ak seen i taalibe yëpp a nga fa suuf ñun te ñun li ñuy indi politique mënu koo indi ñun bu dee tàggat yaram sport kenn rawu ko ci bu dee xaalis ñun ñoo ko yor parce que sport les mieux payés au monde ñi nga xam ñoo ëpp salaire ci monde bi ay sportif lañu waaye ñu ne ñun sport euh, kenn waru koo sport pour ñëpp la parce que waa PDS ngi ci biir waa AFP waa PS waa ñëpp ngi ci biir donc ñun ñu jóg nii suñu alliance pour la défense du sport et des sportifs ñoo benn parti dañoo jóg pour wax réew mi lan mooy njariñu sport ci Sénégal wax leen ko pour bu ñu amee député ñu mën a ko parce que bële passé gis nañ ni bi ñee di kii euh, voté budget bi kenn rek moo ñu défendre muy mettre El te ñun sportif ñoo war a taxaw défendre suñu bopp yooyu yëpp nag mu tax ñun ñu ne ñun politique ñu sport rek la ñuy wax bu élection présidentielle ñëwee nag ku mu neex nga wooteel ku la neex mais ñun sport daal nañ dem ba wax nit ñi njariñu sport ci Sénégal ci réew pour wane ne ñu soofale sport bi am na méngale boo def ci Sénégal waaw pour wane ne ñu ñu soofale sport mooy bu ñu demee ba jël 9 milliards donc daal ni 47 fédération ju ñeent fukk ak juróom-ñaari fédération ci 9 milliards pour dimbale leen mënul nekk boo demee France. benn équipe dong dong muy ñëw. pour ñun mënul nekk donc il faut que état bi seet nu ñuy def ba nga xam ni dañuy bàyyi sport mu yore boppam parce que sport moo war a yore boppam jariñ réew mi parce que sport moo war a jël xaalis di ko dugal ci keesu état bi sur le plan économique boo demee France ñu ngay topp ñu ngay topp boo demee Espagne ñu ngi topp Messi ci ay milliards. yu mu waroon fay fisc bi ñu ngi topp ay Neymar ci ay milliards yu mu waroon fay fisc bi parce que dañuy fay fisc bi ñoom dañuy fay ay impôt joueur bi day fay ay impôt équipe dañuy fay ay impôt ñëpp ay fay impôt donc xaalis bi di dugg ci état bi waaw au lieu état bi di supporter sport bi moo koy dimbale ñun ci loolu lañ bëgg a jëm waaw bi fi mu toll ñu ngi ci ñu ngi ci fukki weer ak benn waaw depuis août daaw ñu ngi koy liggéey dem nañu fépp nag nañu méfie-toi de l'eau qui dort parce que ñun ñu ngi liggéey ndànk-ndànk liggéey nañ ko ba fépp ñu nga fa fu ci nekk ñu ngi ci onze région actuellement foo ne am nañ fa ñu ñu fa toogal ñu ngi jaay suñu quartier bu baax a baax tuwaar fa kàll donc euh, vraiment may profité ci remercier ci sax surtout waa Mbour l'association des arts martiaux de Mbour dem naa fa ñett yoon bañ jox ma ay diplôme d'honneur parce que ñoom xam nañ li ma wax mooy dëgg may remercier aussi Albouri Laax ak kii équipe am waa waaw Africa Promo Foot dafa ñafe en tant que sportif ba yóbbu euh, académie am mu dem ba division deux donc cela veut dire que sport bu ñu ko joxee seen boroom rek mu daal di dox ñun ci loolu rek la ñuy wékku nañ ñu jox li ñu moom waaw sama kàddu gu muñ nag mooy dañuy ñaan sportif yëpp mu journaliste sportif muy médecin sportif muy entraîneur muy arbitre lépp lu jëm ci sport na ñëw ànd ak ñun jàppale ñu ñu mën a am ay député yu nekk ci assemblée nationale ñun di ànd ñoo kenn danañ dem ak suñu alalu bopp wut suñu caution def suñu campagne pour am ay député assemblée nationale pour parce que ñun mënoon nañoo toog bañ a def dara parce que jaarañ ci fool bi nekk ci international ak lépp mais dañ ne bu ñu toogee waxuñu ah ce serait ingrat dañu war a xàllal yoon yi suñu sët yi suñu jarbaat suñu doom yi pour que sport bi ñu jariñu si am ci njariñ kenn bañ ko politique lu ñu ci def mën a jël xaalis parce que xaalis baa ngi ci biir sport merci